asalaamaaleykum gars yi nii naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sports 221 Casa Sport dañoo dal di daanu tey jii ci match bi nga xam ne amoon nañu ko seen digganteeg GS Kabylie ci li nga xamante ne mooy Ligue des champions africain bu ngeen fàttalikoo nag ci li nga xamante ne mooy matchu aller ba ñi nga xamante ñoo di Casa Sport dañoo mooy kon leen ci li nga xamante mooy premier tour préliminaire yi Ligue des champions africain voilà kon fi na ni mën nañu wax ne jeex na amoon nañu yéene dal di jàll ci li nga xamante mooy beneen tour bi waaye nag jaay doole foofu la ca Algérie dal di leen duma ñetti bal ci dara loolu li muy tekki mooy kon génn nañu ci compétition boobu la di Ligue des champions africains ñu sétlu nak li nga xamante moy équipe bu Sénégal yi toujours bu ñuy faral di génn di dem ci li nga xamante moy compétition yu ñu mel duñu ci faral di sori voilà gëj nañu sori lool ci li nga xamante moy compétition yo li melni coupe CAF wala ligue des champions voilà ndax bu ñu génnee équipe ya ñuy dajal ñoo leen ëpp doole fouf ndax kat ay équipe lañu doon yo xamante joueur yu mag lañu am yo xamante ni daanaka mën nañ leen comparer ak internationaux yi nga xamne ñu ngi koy am amna ci équipe yo xamne sax dëkk yo xamne bok seen joueur ya ñu fa am ñom ñoy jouer ci li nga xamante moy seen équipe nationale bu ngeen xolé dëkk bu melni Égypte wala Tunisie lek lek ngeen gis seen joueur bëri di faral di jouer ci li nga xamante mooy salaire yi nga xam ne ñoo ngi koy faral di am ci yeneen dëkk wala boog ci Europe mënuñu ko dégg maam gis mukk di toog fii ci réew mi ndax salaire yi nga xamante ne yeneen club yi ci

Europe di faral di jouer ci li nga xamante ni mooy championnat yooyu nga xam ne ñoo gën a mag nga xam ne képp kuy jouer fii rek loolu mooy doon sa na si li gën tax suñu championnat yi maanaam mënuñu am joueur yi nga xamante ni war nañu mën a dinga maam mbëkkanteeg dëkk yooyu de voilà du ne dañoo dàq football wala dañoo ëpp doole déret demeewul noonu li wax ni rek moo ci nekk voilà suñ joueur toujours ba saison bi jeexee joueur yi gën a dañuy faral di génn dem dégg maam ci yeneen dëkk Europe wala fenen bu ko defee nag joueurs yi nga xamante ne ñoo fa des ñooy dem war a dem jouer ji compétition africain yi amaana doole bi nga xam ne war nañ ko am kon day wàññeeku waaye dàq football sénégalais yi moom mënul nekk ndax bu ñu xoolee li nga xamante ne mooy suñu sélection nationale bi li muy wane ak li nga xamante mooy équipe jeune yi rek li ñuy wane li muy tekki mooy Sénégal moom joueurs yi mën a football ang fi mais dañuy faral di génn toujours képp koo xam ne am nga chance rek wala ñu jeexal saison ñu baax ñëpp dañ leen di faral di tànn di leen yóbbu loolu mooy li nga xamante ne moo tax ba suñu joueurs bu ñu génnee wala boog suñu club yi bu ñu génnee ñu leen di duma ñu ñibbisiwaat voilà loolu daal mooy li nga xam ne xëj na mën nañ ci jàngat lu bari waaye loolu bokk na ci li nga xam ne waroon nañ ko ci mën a leeral kon loolu mooy li nga xamante ne mooy information bi Casa Sport kon ñoom jeexal nañu ci li nga xamante ni mooy compétition boobule ñuy concentré wu kon ci li nga xamante ni mooy championnat bi nga xam ne ñu ngi koy waajal di eh, dégg maam door ci fan yile gannaaw loolu nag dañuy génn ca bitim réew bitim réew nag tey jii bokk na ci match yi nga xam ne amoon na fa bokk na ci derby de Madrid bi nga xamante ni xewoon na ci diggante ñaari club yi la di Real Madrid ak Atlético de Madrid nga xamante ni match lay doon boo xam ne toujours day faral di bëri coow ay xeex ak lu ne da ci am tey jii ñii di Real dañoo fekk Atlético ca dëkkam muy Wanda Metropolitano dal di koy dóor ñaari bal ci benn voilà mu nekkoon nag match boo xamante ni moom tension bi bëri woon na trop waaye nag ñii di Real ñoo ci mujjee génn ak ndam ñaari bal yi nga xam ne Real Madrid am nañu ko Rodrigo moo ko daal di marqué ak ki nga xamante ne mooy Federico Valverde ci dix-huitième ak trente-sixième minute bi ñu dawalee nag ba quatre-vingt-troisième minute ki nga xamante mooy Mario Hermoso dal di li nga xamante mooy benn bal waaye nag moom gannaaw ga bi ñu dool minutes après maanaam quatre mu dal jël carton rouge moom ki nga xamante mooy Mario Hermoso bi nga xam ne dafa fekkoon mu am carton jaune mu jëlaat beneen jaune muy rouge ci li nga xamante mooy jongante googule kon ci temps additionnel bi ci la dal jël ci match boobu la nag ñu gis ki nga xamante ne mooy Vinicius Junior ak euh, ki nga xam ne mooy Rodrigo dal di fecc pecc moomu nga xam ne dañ leen ko doon tere maanaam fa fan yi yëpp yéen a ngi fàttale ko ne ki nga xam ne mooy Vinicius ñu bëree ngi koy attaqué réseaux sociaux yi di ko saaka ba am sax ay joueurs yu mag di ko dégg maam jàppale ci loolu muy fecc moom nga xam ne da ko doon faral di def bu marqué but ba nga xam ne ñu ngi ko doon xooqatal ci loolu tey ji fecc na ca Wanda Metropolitano ne kii di euh, Rodrigo moo marqué fecci loolu mooy li nga xam ne moom la ñu doon bañ waaye am na voilà mu nekk loo xamante ni xëy na benn problème nekku ci xanaa gars ñoo doy waar rek waaye daal li nga xamante ne mooy célébration boobule moom la ñu doon bañ ndax dañu jàpp ne xëy na dafa nekk daal comme genre ñaawale wala leneen waaye daal ñoom ak lu mën a xew moom fecci moom def nañu ko ci seen kanam ci biir stade boobu voilà dal dafay génn ak victoire comme ni leen ko waxee match bi bëri woon na tension trop jàppante nañu ñaari yoon ci tàmbali ga ak ca mujjanteel ga ñaari yoon jàppante nañu ci li nga xamante ne mooy jongante googu maanaam xeex daal mën nañ ko wax donte ne kenn dóorul waaye jàppante moom amoon na ci li nga xamante ne mooy match boobule gannaaw loolu nag fële nga xam ne mooy ci Italie moom itam amoon na match boo xam ne xewoon na fa bu am solo doxoon diggante AC ak xamante ni mooy ca bopp classement ba AC Milan mi doon xëcc ngir yéeg ca kaw moom dafa mujjee suux ndax li nga xamante mooy jongante googu daf ci mujjee daanu voilà bu ñu xoolee nag ci li nga xamante mooy match boobu kii di Giroud moo marqué pour ñi di waa AC Milan fekk ki nga xamante mooy Politano dal dinay ubbi caaxi ci benn penalty moom moo njëkk dugal pour Napoli Giroud dal di ñëw égaliser waaye ki nga xamante mooy Simeone dal di ñëw marqué beneen but moo marqué tey ji beneen but ngir ñii di waa Napoli dal di am ndam ci jogante googule bu dee ca France foofu itam tey derby mu am solo moo fa amoon doxoon diggante ñi nga xamante ni ñoo di euh, Olympique Lyonnais ak Paris saint waaye foofu it Paris moo fa dal di am ndam Paris moo dóor ñi nga xam ñoo di Lyon dañu leen pattal maanaam benn bal ci dara bii boobu sax ki nga xamante ne mooy Lionel Messi moo ko marqué Lionel Messi kon fi mu ne am na lu ni mooy saison bii ñu nekk ki nga xam ne nag moom la ñuy wax Ndeye Awa Diakhaté ak Mama Diop nekk ñaari joueurs sénégalais yoo xamante ne ñu ngi footballé fële ci Olympique euh, Marseille ci équipe bu jigéen ñi voilà maanaam bu ngeen fàttale ko ñoom ñaar ñooñu la ñu ngi woon ci équipe euh, Sénégal bu jigéen bi nga xam ne bu yàggul dara ñu ngi doon joué ci CAN bi léegi nag ñoom ñaar dañoo nekk fële ci Olympique de Marseille xam nga foofu la ñuy footballé waaye nag dañoo daal di marqué ay but yu am solo ci match boo xam ñoom amoon nañu ko seen digganteeg Nîmes voilà ci match boo xamante ne ñoom ñoo ci daal di am dam juróom-ñetti bal ci dara waaye ki nga xamante moom dafa daal di marqué ñaar ñaari bal ci match boobu waaye nag ki nga xamante mooy Mama Diop moom hat-trick la def maanaam triplé la daal di am kon ñoom ñaar dugal nañu 5 bi Mama Diop 3 bi ki nga xamante ne mooy Awa Jaxate 2 bi loolu nag nekk loo xam ne am na solo voilà kon ñoom ñu ngi wane seen bopp foofu la ca Olympique de Marseille ñu jeexalee ko ak li nga xamante ne mooy championnat yi nga xam ne daal dinañu koy tëj fi mu ne nii mën nañu wax loolu ndax kat li nga xamante ne mooy joueur dañu war dem jouer ji ci li nga xamante ne mooy international break bi voilà ñu tàmbalee ko ca Allemagne bi ñu xoolee li nga xamante ne mooy tableau classement bi fi mu ne nii Union Berlin moo nekk ci bopp classement bi Borussia Dortmund topp ci Union Berlin mooy nekk ci bopp classement bi ak 17 points Borussia Dortmund topp ci ak 15 li xamante ni nag mooy Fribourg moo ci topp ak 14 points Bayern Munich bu ñuy xool fi mu ne nii mu ngi ci juróomeeli place bi ak 12 points bu ñu xoolee beneen championnat muy France France nag fi mu nii mën nañu wax ne Paris Saint-Germain mën na jiitu ca kanam ñi di Olympique de Marseille ndax ñoom dañoo am ndam tey Olympique Marseille dañoo match nul moo ñëw ci ñetteeli bi dégg nga bu ñu xoolee beneen championnat muy fële nga xam ne mooy ci Italie comme ni leen ko waxee Napoli moo nekk ci bopp classement bi ak 17 points topp ci moom itam am 17 points maanaam ñoom ñaar ñoo tolloo ca kaw waaye Udinese moo ñëw ci ñetteelu place bi ak 16 points. beneen championnat muy fi nga xam ne mooy ca Angleterre foofu nag jamono yi Arsenal kon delluwaat na ca bopp classement ba Arsenal kon mu ngi ci 18 yoo xamante ni am na ko ci seen match yi nga xam ne joué na ko waaye nag ñii di Manchester City ñoo nekk ci ñaari place bi ak 17 points ta ci ak ñii di am lu toll ci dégg nga maam Espagne nag bu ñu xool jamono bi ñii di Real Madrid ñoo delluwaat ca bopp classement ba gannaaw bi ñu amee ndam tey jii fi mu ne ñoo nekk ca kaw ak 18 Real Betis moo nekk ci ñetteeli place bi jamono bi am lu toll ci points